ñu ngi lay sa waa eh, la ko waaye booy daal ay sonko lañ ko kat moom waaye daal sonko yi moom sax na fi sap <laughs> mi ngi nii ak koomaangam sonko daal moom xam naa moom day woo